asalaamaaleykum wa rahmatullahi euh, mbokki àdduna bi mbokki Sénégal fu fuñ mën a nekk euh, ñu ngi leen di jotal suñu nuyoo ñu ngi tudd Assane ñes ñu di ñu wax Assane Baye Elimane Niass ñu dëkk Kaolack Medina Baye Niass euh, di nekk homme politique di jàppale son excellence président Macky Sall mm, mais aussi and ak ki nga xam ne tey mooy Mouhamed Ndiaye Rahma Euh, di un homme boo xam ne ni vraiment ku ne xam nga ko ci yaatuwaayam ci euh, gëm li nga xam ne tey euh, mooy mooy mooy mooy yëkkati askan bi wala mooy dimbalante ak askan bi ci taxawaay boobu ñu ànd ak moom di liggéey ci ron président Macky Sall ci tànk yooyu lañ nekk. sant yàlla bu baax loolu dañ ci am gis-gis bu kawe gis-gis bu rafet. Euh, di féliciter encore président Macky Sall son excellence di ko wax ne ko wax dëgg yàlla euh, képp koo xam ne ni pare nga pour bëgg gis liggéeyam yaa ngi koy gis lii nag euh, damay wax ne lenn la ci yu bëri yoo xam ne tey taxawal na ko waaye tamit lenn la ci yu bëri yoo xam ne aussi ay projet la yoo xam ne nii sumb na ko ci ci ci ci réew mi. damay wax euh, toujours ne moom réew mi rek ko itteel amul leneen lu ko itteel lu dul réew mi lii mu def tey ci Touba Mbacké ci dëkk sunu maam bu tedd boobu Cheikh Ahmadou Bamba hôpital boobu nga xam ne nii damay wax ne defalu ko waa Touba mais waa Sénégal lépp la ko defal parce que Touba ci Sénégal la bokk te wax dëgg fa yàlla buñ gisee ne euh, mooy deuxième ville euh, du Sénégal kon Touba yelloo na lu ëpp loolu yelloo na hôpital bu yem noonu nga xam ni tey boo seetoon rek dañ daan jugee ko Touba wala li wër Touba wala mën naa wax sax euh, ba ci ay Louga Ndar di ñëw Kaolack ci yenn euh, maladies yoo xam ne ni maladies yoo xam ne ni euh, Dakar da nga ko mënoon a faju si donc Touba nga gis hôpital bi ni mu yem tabax bi ni mu muccee ayib ak matériels yi nga xam ne tey moom lañ fa def ànd ak muy mën a faj jàngoro yu bëri ci alal ju yem noonu trente six milliards wax dëgg yàlla loolu ku ko def ci réew bëgg nga réew mi ku ko def ci réew wax dëgg yàlla yéene nga leen jàmm yéene nga leen wér loolu nekk euh, li ko président waxee euh, dafa pare pour def ko ci mbooleem région dëgg sax am nañ ñu ko jot a am euh, di ñaan yàlla rek mu matal ci mbooleem région su ko defee wax dëgg yàlla ci wàllu faju ci wàllu wér-gu-yaram Sénégal dina tëddee ci beneen boor dañ ko ci félicité encore bu baax a baax di ko ñaanal mais aussi di ko jàppale Euh, di wax képp koo xam ne nii lu baax rek moo la itteel ak foo mën a nekk rek euh, war nga xam ne lii président def euh, taxawaay la boo xam ne nii dañ ko war a delloo njukkal ñaanal ko ci yàlla gunge ko ci liggéey bi pour yàlla mi nga xam ne nii moo am te mënta xam defal ko tawféex ci réew mi. waaw man mm, coalition bi nga xam ne mm, ñoom ñoo ko taxawal mu tudd coalition yeewi askan bi damay wax ne biñ yeewee askan bi ba pare. Euh, mën nañoo taxaw ne dañuy yeewi askan bi parce que commençant ci Ousmane Sonko ak ñi mu ànd ak ñoom ñoom ñëpp bàyyuma kenn ñoom ñëpp bi problème amee ci mois de mars bi kenn ku ci nekk gis nañ sa taxawaay bu ñaaw bu bon boo xam ne nii yaa ngi ko jëmale ci askan bi daan naa wax ne lu dul dëgg du yàgg donc lii nga xam ne tey moo am muy coalition yeewi askan bi c'est normal war na ci ñoom parce que dañoo ruus war na ci ñoom parce que dañoo am gàcce war na ci ñoom parce que def nañ pexe bu nekk bon bon gu nekk manipulation bu nekk am ci ñenn ñoo xam ne nii ay ay ay ay kilifa lañ wala ñu leen di ooyee ay kilifa ñenn ñoo xam ne nii ñu ngi leen di ooyee euh, ay ay presse wala ñenn ñoo xam ne nii euh, ay faux imam lañ àndoon ci xeex bii nga xam ne nii lañ ci bëggoon lépp mooy taal Sénégal damay wax ne nguur ne kenn du ko jël ci xeex. kenn du ko jël ci fen kenn du ko jël ci soos dëgg mooy mujj te dëgg mujj na loolu maa ngi wax ne nañ leen may tuuti parce que askan bi yeewu nañ xippi nañ seen bët yàlla mooy leeral leeral na lépp lu yem ni fukki jeune ak ñeent nga jël leen rey leen nga pare yow yaa ngi dox sa soxla yaa ngi gàdde say doom yaa ngi dox ci say ite loolu wax dëgg yàlla kum doyut nga xalaat pour nga jéem a jël sa matuwaay xam na ñii ci li nekk mooy jéem a naxanteeg askan bi rek ba foog ne danañ jël nguur gi mais loolu maa ngi leen di wax ne jeex na tàkk kon yeewi askan bii ñu tuddee seen coalition bi eh, danañ ko dox ñoom ndax am waaye dañuy eh, dañoo dañoo yeewoon askan bi muy coalition boo xam ne ni amut fenn fu mën a yegg loolu moom di ci kanam rawali bët. waa loolu man awma ci sax lu bëri lu ma ciy tiire parce que wax dëgg yàlla eh, bët bu set. Euh, da nga dégg ay mbir yoo xam ne ni mooy li ma ci waxoon rek leeral rek ci lay nekk gis nga yàlla gëmul nelawut te àdduna euh, bi lépp lu ciy waaj def na ko seetaat président Macky Sall nit la koo xamee ni euh, nit ku am yërmande la rawatina mu am yërmande si réew mi nga xam ne tey moom lañ ko dénk population bi ñoo ko fal force wuñ amul kenn kuñ ci defal nii wala naa ba taxaw nga ne da ngay fal président Macky Sall mënuñ koo fal nag ci ngor ci fulla ci fayda ci njom ba nga xam ne taxaw na di jël ay matuwaay di liggéey liggéey bu mucc ayib liggéey boo xam ne tey euh, wallahi lazim boo xoolee da nga xam ne président Macky Sall taxawaayam ci Sénégal euh, rafet na trop euh, kilifa yim nekkat rafetlu nañ ko lool jigéen ñi rafetlu nañ ko jeunesse bi rafetlu nañ ko seulement li fi nekkoon rek mooy euh, benn nombre de personnes yoo xam ne ni euh, xaw ma dañ leen a fay mën naa wax sax dañ leen a fay mën naa wax sax dañ leen a def ay ay ay ay ay ay dige yu rëy yu bëri yoo xam ne tey mooy ne fexe leen ba taal Sénégal Sénégal soppeeku ci beneen xar-xaram li ñu leen digee woon ñu jox leen ko waaye wax dëgg fa yàlla réew mi nga xam ne nii réewu maam El Hadj Abdoulaye Niass la réewu maam Cheikh Ahmadou Bamba la réewu maam El Hadj la ak yeneen kilifa yi fi tëdd euh, am na beneen xar-xaram bu muy doxee ko mooy euh, ñoom liñ bëggoon. kon loolu yëpp damay wax ne euh, sant yàlla rek di ñaanal son excellence président Macky Sall yàlla yokk ko góorgóorlu yokk ko ite waaye tamit yokk ko ndimbal aar ko ba nga xam ne nii li mu bëgg ci réew mi yàlla dina ko defal. benn amuñ amuñ amuñ ci lan luñ mën a sukkandiku mu walla ne la. Euh, président def na lii ci lu ñaaw wax na lii ci lu ñaaw tout récemment da ngay gis ni problème bi am nii euh, ci ñoom kilifa kanaa duñ taxaw ne ni complot la loo xam ne lay faits moom ñëpp teg nañ ci seen bët te kenn du taxaw ne complot la kenn ku ci nekk li nga xam ne nii moom ngay jiñ président wala moom ngay wax président ci lu bon yow yaa ngi ci làq loo xam ne ni tey bu yàlla feeñu lool rek euh, waxaatuñ la moo tax euh, lii nga xam ne nii ci la ñuy kër kër yi benn dix personnes xoolal li xew Amérique ne bëkk Demba Ndiaye le président dem na Amérique xoolal ña ko fa teeru macha allah presque mbooleem sénégalais ci Amérique ñëpp génn teeru ko pour wan population Sénégal ñun fier nañ ci suñu président. pour wan population Sénégal wan àdduna bi na leen on est fier de notre président président la boo xam ne nii président bu am yërmande ci ay doomam la boo am yërmande ci réewam la président buy liggéey ci askanam la. donc nag benn dix personnes euh, démb wala tey euh, nga gis leen <laughs> ñu taxaw génn seetluñ sax fu président jaar dañuy génn rek dix personnes lañ dañu jëlee fee jël fee fay leen ñoom ñu taxaw ñu ne dañuy saboté mais loolu gàcce la gàcce la ñoom waroon nañoo rus a génn sax pour xam ne au moins euh, li ñu def nii amul sens amul benn benn benn benn dëgg ñu jéem a fexe ba nga xam ne nii danañ danañ danañ danañ rus parce que ñoom ay sénégalais lañ waroon nañoo wane beneen tànk. muy tànk boo xam ne tànk bu rafet la tànk pour jéem a wan euh, adduna bi na leen wax dëgg fa yàlla ñun am nañ président boo xam ne nii exemple la ci président Afrique yi exemple la ci président adduna bi. waxe woon yàlla dana feeñal képp koo xam ne nii euh, laaloon nga ci xeex bi amoon mois de mars nga xam ne defoo ko président Macky Sall mais tous les sénégalais nga ko def tous les sénégalais alal jiñ fi yàq kër yi ñu fi taal oto yiñ fi taal. doomu jàmbur yiñ fi rey sénégalais yiñ fi rey loolu ak la boo xam ne ni euh, bu leen ko yàlla isaabe ci àdduna bi ñoom ñëpp danañ feeñ kon kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk danga waroon a nekk exemple ci taxaw ci li ngay xeex bu fekkoon ne dëgg la man wax naa ne ku ci nekk ci ñoom bu fekkee ne li ngay xeex dëgg la yàlla xam na te dina feeñal bu fekkee ne dëgg yàllaa ngi xippi te dina xool te dina fay te dina leeral yàllaa ngi leeral nag yàllaa ngi leeral ñoom seeni jëf nit ki bala ngaa digle sangu dangay sangu ba set doo a digle sangu ñoom ñëpp danañ am problème danañ leen jàpp te duur ne dañuy taxaw wax ne complot la kenn bu mu fi waxati complot la nag kenn bu mu fi waxati complot la lii affaire personnelle la affaire la yoo xam ne ñoom ñoo jël seen responsabilité di ko def te teg ak luwaawu Sénégal loolu tax daan yëpp yu ñu leen mën a teg rek danañ leen ko teg kon man foofu rek lay lay lay laay wax ci affaire ñoom kilifa. Euh, taxawaayu Mouhamad Ndiaye Rahma ci kaw Kaolack euh, taxawaay la boo xam ne nii euh, damay wax son excellence président Macky Sall toujours toujours man yàlla rek laay jiital ci lépp loo xam ne nii maa ngi koy wax bëgg naa président Macky Sall bëgg goo xam ne nii yéene naa ko yéene goo xam ne nii Benno Bokk Yaakaar la gagné à quatre-vingts pour cent ci Saalum muy Kaolack loolu jiital Mouhamad rax ma rek moo ñu ko mën a may waxuma ko ci benn anam boo xam ne suma banneexu bakkan la déedéet damay wax parce que dama ko teg ci dëgg damay wax dam parce que dama ko teg ci ay fee yoo xam ne gis naa ko gis nga koo xam ne nii yoroo benn ndomba tànk depuis président Macky Sall toog ci gouvernement bi ba léegi Mouhamed Ndiaye amul benn jour bu mu lu askan bi ku mel noonu nga xam ne toujours mi ngi ci bëgg-bëgg askan bi mi ngi ci jafe-jafe askan bi xam ci liñ nekk muy sonn ci ñoom di dimbalante ak ñoom ndawal président boo xam ne nii tey boo demee Kaolack dangay foog ne moom kott dong rek mooy ndawal président ci Kaolack da foog ne moom kott moo fa nekkal président te président am nañ ñu ko fa nekkal ñu bëri ñoo xam ne tey li leen yàlla def tey wax dëgg yàlla yàlla ak askan bi la ñu waroon na delloo askan bi njukkal googu dimbalante ak ñoom mais ñu croiser les bras à six mois des élections nga gis ku nekk dana génn ku nekk dana feeñ damay wax ne deux douze ba léegi tama bi ma xamee Mouhamed Ndiaye avant 2012 ba léegi ci loolu la nekk président Macky Sall toog mu gën a continuer itéem yooyu gën a continuer jëfam yu rafet yooyu jëfam yu baax kon buñ naxante buñ naxante ñun ñëpp ay mag lañ ay kilifa lañ te billahi wallahi tallahi li may wax nii yàlla rek moom ma ciy seedeeloo yàlla rek laa ciy seedeeloo soxla ma ci keneen di ma seedal donc li war mooy euh, jàppale président jàppale Kaolack gi nga xam ne tey dafa nekkoon ci ay problème Kaolack gi nga xam ne dafa des gannaaw Kaolack gi nga xam ne ni euh, euh, problème yi kenn mënu ko wax mais bi njëkk ci problème yi mooy problème assainissement bu ñu fexoon ba nga xam ne ni euh, assainissement bi ji waa jeg na ñu fexe ba nga xam ne développement bi ci lépp loo xam ne ni ay usine la ñu ñu ñu ñu ñu fexe ba dekkal ko ñu am maire boo xam ne ni maire ku mel ni Mouhamed Ndiaye nga xam ne li njëkk ci jukko mooy yërmande te Mouhamed Ndiaye yërmande kese la nit nag wax dëgg yàlla bu yërmande jiitoo ci yow danga xam askan bi ni nga leen di jàppee ak ni ngay dimbalante ak ñoom moo tax ñun dañuy wax son excellence ne tête de liste pour Kaolack ci élection municipale yi ñun soxlawuñ ci ku dut Mouhamed Ndiaye Rahma parce que moom rek nga mën a jël ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñëpp àndoo ak moom demal Kaolack nga seet demal nga seet Kaolack Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne tey ñoo fa nekk di liggéey jàppale président Macky Sall ñoom ñëpp gisoo ci kenn koo xam ni mi nga ànd ak beneen leader ku dul Mouhamed Ndiaye Rahma parce que suupul na woyof na te mën yaatal na wane na ñun ñoo bokk kawlax ñoo war a dimbalante pour ànd euh, pour kawlax baax kon ku mel noonu bu fekkee ne da nga koo am ci dëkk président am ku mel noonu dëkk bi tamit am doom ju mel noonu sëriñ si am ko jigéen ñi am ko jeunesse bi am ko donc ak ouvrier yi képp kuy liggéey yaa yaa ngi def sa yéene yaa ngi def sa bëgg-bëgg yaa ngi def sa xol président Macky Sall yal na ñu jiitalal Mouhamed Ndiaye Rahma euh, ci boppu euh, euh, mairie bi mu ca su ko defee su loolu amee rek dina yomb pour ñu liggéey liggéey boo xam ne nii dana dana dana mucc ayib ba boobaa danañ ñaan képp koo xam ne nii yaa ngi ci biir di jàppale son excellence nga ñëw ànd ci liggéey boobu ñu liggéey pour am victoire parce que Mouhamed Ndiaye moo xam ne nii waxuma la rek ñi politique ñu ànd ak moom wala benn bi rek ñoo ànd ñoom. waaye même ñu dul politique sax bëgg nañ ko sopp nañ ko am nañ ci moom yaakaar euh, te pare pour jàppale ko euh, loolu nag bu amee chance la loolu nag bu amee beneen beneen beneen beneen jéego la yokko euh, yokku la ci ci ci ci ci ñu taxawal ko jiital ko pour am victoire. waaw mais Abdoulaye Khoumba c'est un ami Abdoulaye Khoumba jeune la vraiment am na ambition am na bëgg-bëgg am na yéene. Euh, man su ma gisee ko am yéene am bëgg-bëgg dama koy wax euh, vraiment mi ngi jàppale son excellence président Macky Sall euh, te xam na yii nga xam ne tey mooy dëgg xam na li nga xam ne nii tey moo olof dafay wax ne kenn ku nekk xam nga ki man wala kenn ku nekk xam nga ne bu bu bu bu boo jiitee wala keneen jiite xam nga li nga xam ne tey mooy réalité bi man xam naa ci xolu Abdoulaye Khoumba nit ku baax la nit ku am yéen la nit kuy jàppale président la mais tamit nit koo xam ne ni ne ku ku ku ku bëgg Kaolack la kon gisee ku mel ni Mouhamed Ndiaye Rahma nga xam ne Kaolack yëpp mu jublu lañ ci moom euh, mu gis ku mel ni Mouhamed Ndiaye Rahma nga xam ne depuis président taxaw ci bopp réew mi gis na ittey Mouhamed Ndiaye Rahma parce que man xam naa ci dara ñun ñëpp ñoo nekk di ànd nekk benn ci ron président di ko jàppale ci kaw la kooku bu defee jëf jooju dañ koy félicité Péménage euh, lu baax la lu rafet la pour APR euh, Kaolack loolu yëpp pour regrouper nit ñi la boole leen nes leen ci benn buum ñu ànd nekk benn loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax waaye tamit di ko oo ne ko euh, ak lépp lu mën a jàpp na ñëw comme ni ñuy ooyee ñu nekk benn nekk bloc jiital Kaolack mais aussi jiital ki nga xam ne tey mooy Mouhamed Ndiaye Rahma euh, jàppalante ak moom pour euh, la victoire euh, de benn Bokk mais aussi victoire pour président Macky Sall mais aussi pour victoire pour Kaolack. waaw jubo boobu nga xam ne dafa am ci diggante ay leader yàgg na ci yàgg na ci ñàkk jubóo moom politique dañuy wax ne sa xaritu tey mooy sa noonu suba. sa noonu tey euh, mooy sa xaritu ëllëg donc loolu ay réalité la yoo xam ne nii euh, dafa am ci politique mais fi ñu jëm ci élection euh, ñoom ñëpp ay leader lañ ñoom ñëpp ay ay ndaw lañ ñoom ñëpp ay doomu Kaolack lañ ñu nekk ci ron président mac Sall bokk ci benn ñun ñëpp donc ñu juboo mooy li nga xam ne tey moo ñuy jëriñ ñu fàtte lépp fàtte lépp loo xam ne nii mer la woon ak lépp loo xam ne nii gis nañ ne moo ñu doon boole ñu boole suñu doole def ittee ba nga xam ne ni euh, wax dëgg fa yàlla euh, li fi ñu jëm danañ ko liggéey liggéey bu mucc ayib. loolu sax dinaa ci wax ne leen euh, man lu mën a xew rek damay damay damay damay wax ne Mouhamad Ndiaye ba muy dajale ay nit wala ba muy seeti ñi mer wala ba muy dem ci lépp loo xam ne nii li ma bëgg wax mooy ne yàgg na ci. Euh, ci ci ci ñi meroon toog ci ñi amoon jafe-jafe ci ñi nga xam ne tamit gis ne ne dañu war a ànd parce que ci euh, ci parti bi lañ lañ lañ bokk loolu ba ci doon dox wax dëgg yàlla eh, yàgg na lool comme ñoom buñ toogee ba léegi ñu ciy dox alhamdulilah nga ci galaama dañ leen di wax jërëjëf mais su dañ leen wax na leen nii moo war a am nii la war a demee te tamit kenn ku nekk nag xam na euh, buñ jiito jiitaloon ne diw moo nekk tête de xam nañ lan moo ñu war a mën a may victoire ci Kaolack te yaakaar naa ñoom xam nañ ko donc duñ du ma nangu mukk ñoom ñu foog ne dañu war a ñàkk victoire bi pour kaw euh, Kaolack wala ñu def leneen loo xam ne ni dafay tax ñu ñàkk euh, victoire bi loolu wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne ni dama leen di félicité ci jubo bi bu baax ne leen ñëw leen ñu ñëpp ñu ànd nekk benn jubo waaye tamit ñu wax dëgg nit buy wax dafay wax dëgg te yàlla tax li ñu mën a may victoire à Kaolack mën koo may Benno Bokk Yaakaar mooy ñun ñëpp ñu rangé wu ci gannaaw Mouhamad Ndiaye Rahma pour plaisir u Kaolack pour jàmmu Kaolack rek bu fekkee di itteel lañu di gërëm ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla di wax euh, ne ñun li nga xam ne nii tey mooy feebar pour Kaolack euh, dañu war a war a fexe képp kuy doomu Kaolack ak foo mën a nekk nga taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet lay nekk waaye tamit nga fexe ba nga xam ne ni euh, danañ ñaan yàlla gannaaw bu ñu yàlla mayee tête de liste bu baax euh, buñ yaakaar ci moom mais aussi yàlla defal ñu euh, une équipe municipale boo xam ne ni wax dëgg yàlla seen taxawaay dafay nekk taxawaay bu jub taxawaay bu bu am yërmande aussi pour mën a dimbalee ki nga xam ne tey moo fi maire jàppale ko ba nga xam ne ni danañ indi résultat boo xam ne ni moom lañ doon xaar ci moom di gërëm ñëpp nag waxtu dëgg yàlla di sant ñëpp euh, di sant euh, sunu euh, mbokk bi nga xam ne ni mooy Sall di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex defal ko sutura yàlla yokk maxaamam ci barke alqurani karim ci barke Cheikh Ibrahim